makka njol medina njol bayte njol ay jalleno njol njool medina njool bayteek njool saam ibnu abdalaay jalle noon njool maakan njool medina njool bayteek njool saam ibnu abdalaay jalle noon alaay njool maakan njool medina njool bayteek njool saam ibnu abdalaay jalle Medina Ndiol bayte Ndiol Sane inna allah taala ay jàlle na ay Ndiol Makka Ndiol Medina Ndiol bayte Ndiol Sane inna abdala ay jàlle na ay Ndiol Makka Ndiol Medina Ndiol bayte Ndiol Sane inna allah taala ay jàlle njool alaay njool makka njool medina njool bayteek njool saam ibnu abdalaay jàlleeno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 Yeah. la la la la la la la la la la la lao hủy la la Quý yên đồng mồm Đàn yên đồng bếch Giao kiên điều Muốn ăn lắm Mà Muhammad ci addisam bii mu tëral sallallahu taala alayhi bëgg nu gindiku ci ci addis bii mu tëral ci ñuul ak mahad ak mbooloom te loolu lépp yàlla def ko mu boole ca importance su jàngaleem loolu lépp sunu borom def ko mu teg ca ne moom Muhammad am naa yoon wu jëkk am naa yoonu ñaareel am naa turu jëkk am naa turu ñaareel am naa melowu jëkk am naa melow ñaareel sallallahu taala ci sunu coobare nag mën na noo weddente waaye këyit yi moom kenn mënu koo xoos man nga nag a ñëw ci addis bu la neexul rek la mës la mësal jàll waaye nag doo mën a yàq téere ba mbaa boo yàqee bi it ma jëndi beneen rek ngir téere bi ko bi ko andee ngi nii si ngi nii téere bi sax limaamul mahadil muntasar la tudd xam nga kii dund bind na ko mu ne moom rasulillah am naa yoonu njëkk ñu nekk sa yoonu njëkk na mu tudd mu ne seetal alquran ñu ne ko ci wan saar mu ne sóoratul axiyaat nu fa suy yoon wu njëkk tudd mu ne sullatun min al awalina ne wa xalilun min al axirin dinaa bari mbolo ci sama woti bu jëkk way dina néew ci bu mujj bi amna turu tur wu jëkk ñu ne ko nga tudd bu jëkk mu ne muhammad amna turu ñaarel na ngay tudd mu ne mahdi amna amna melawu njëkk ñu ne ko nga mu ne muhammad bin al bidi dama wéxon ñu ne dugub sa meloo ñaare mu ne mi na suudi ñëw loolu lépp addis yi taqale nañu ko dajale teg fi ngir bëgg nu gaaw a gindeku kéwe yi waxul sax ne ku sa wërsëg nekk lu nga gëm waaye bul weddi noppil sëriñ Modou nag ne imaamu mawlidu hoo fi andresin ñu ne ko mu ne waaw mu ne mooy limaam moo lu asra te na ma ko waxe limaamu mawlido fi andasin wa limaamu mawlido asratin munsur bi bayni مولد أسرة ببيت amrasin ak limaamu mawlidu fi asrasin sëriñ moom du nee na unsur bi bay nii nii lima mahdi yu mu judd ci mille deux cent cinquante ak mu judd ci mille deux cent soixante ne unsur bi bay nii nii xoolal seen diggante amrasin ak asrasin defe naa borom isaalu jali dadrasin la waxa ak asrasin suma ma fi ami suma ma fi aami dadrasin xataamu bil amri la su fi aami dadrasin xataamu bi amri la defe mom moom la wax ثم في عام تدرة قد جمها بأمر الله wala borom isaani bi daal di wax limaamu mu judd ci amras am mu judd ci asras sëriñ Moodu ne seetal diggante bi kii cinquante cinq la kii mille deux mun nga seet ñu ne ko yow yaay arrière yow mi way teq mu ne lama mada limaamu feel orome sadis mawlidu limaamu feel سنة سنة سادسها مولد الإمام في الأرمي دار من كدين دار دار دار وخبي كن من دوني ين في ديت جانغ سورينا لب ولا فلون بيا كفين دار من كدين لما مدى أندرس بخمسة سنة سادسه مولد الإمام في الأرمي كن مكتي باه نانغلو نين في ديت جانغ سورينا حلب ولا بلون بيا الله كم من لدندي وحبي بنرك ni mu doon ragal yàlla fu gën baraaya moo gën suje ka doox dëgër baraaya dara mënu ci de ba yàgg mu ne ko weddi al ku doon felaw li hayra mu teggi ne teew na nga teew dara mënu ci de te yàgg mën na ko fuy tëbal ci yàlla ji jamaana nagam ndogal gi baat sa daana lama mada an rasin bi xamsatu sanatin saadisaha mawlidul imaamu fi l urumi allahu akbar moo wax fa yoof ne yàlla moo ma yónnee ba ngeen jubee la bokkee ko keefa bari mun la dindi wax ba lan moo cay tontu ñu naa ko loolu rëy na maam li ma amoo mu yëkki baatam ba ca kaw ñu yemoo

amoon na makka gaa yu baax ya booloo setti waxam jamuy juwaar juwaala setti waxam ja muy juwaar juwaala setti waxam jamuy juwaar juwaala ñu naa ko wax ji rëy na maam li maamoom mu yëg ci baax baatam ba ca kaw ñu yemoo mu yekki baatam ba ca kaw ñu yemoo mu yekki baatam ba ca kaw ñu yemoo waaye mën a weddi musula juri doom ñuy daago mu jadu jam mu ngalawaay bul naa ko mu jadu

juróomi at saadisoo juróom benneel ba mawlidu limaam fil urmi ci la bàyyi laay juddoo ci saw ñu ne ko il nga wax nu kuy baayam weer wa mu juddoo ak lan gàddaay ga mu ne mawlidu bi asasi ni الولد الأصم له نسم صوبان مولده danga li mu wax na jul asan moom la waykat woon naa ibnul asan seydina limaam way wii ne najul asan nisfu min sooda soobaana mawlidahu mu ne doome alasaan cawja la la réeral di doon di eh, la réeral di woon asan askariyu xam nga jàngkat bi d'accord na ne ci mahdi yi dana ñëw d'accord na ca turu baay ba waaye eh, sant wala réer ndax arab yi ñoom dëkk lañuy ñuy dakkantalee wala giir ñu ne limaamul mahdi asan askariyu al kay jur bàyyi laay ñëw alasaan caw jur ko askariyu mu ne najul asan doomi alasaan ja nisfi saabaan ci fukki fan ak juróom ciw barax lu la gane àdduna comme guddi ga maam ibrahima seen lii daan màggal ca kambari yal na yàlla dolli leeram ciw baraxlu ca fukki fan yaag juróom la Seydina Limaamu sunu sang bi gane àdduna ba mu ganee àdduna boroomi kéemaan la ngir ku nekk si kéemaan yonent bi am na kéemaan yi muy def si juddoom ci tusngal ak luttal bagaan nga xottiku bàyyi laay nag ba mu ganee àdduna booba daal ci raam lay tollu pour mu def kéemaan bu raamee ba dëgg dem àll baw ginaar day toogaat jooy ba ñu raxas tànk ba muy soog a déparaat ba yàgg muy nemm ko di di xàmmee di xam ba tollu ci dëgër tuuti ñu di ko fanaanoo baayam di ko fanaanoo ba mu koy fanaanoo guddi gu nekk nee na daal fas yu ñuy yeew ci bunta néeg bi bët mënu caa dal ngir ay leer ci bunti néeg maam Alassane ba yàgg góor gi jël maam biram curu yi limaamu di leen booleb lal ñuy fanaan ba yàgg am kuy dugg ci néeg bi di tiim gune yi am gune bu muy déeyool ci kaw lal bi ci gune yi góor gi nem ma kooti loolu jëli maam xari caw def fa ñuy fanaan muy ñetti guni imaamu jëlënda jóge tëngéej gane maam alasaan guddi ga mu fanaane mu gis gune gu ndaw googu yàlla këpp ka mbaxanam wurus mu yeewu fa ñuy ndékkee moom maam alasaan mu ne ko alasaan sa yi day am na ci ku sunu borom dëpp ndëppal wurus xawma ma si nag ku mu ci doon ba ñu ne tekk ba yàgg bàyyi lay ni mu xeet kër si jàll na ko xele baa ngi nii kii la ma yàlla wunoon bi kooku bala maa dama daan ngeen si kaba nag خير خلق العيلة والو لا إله إلا الله man naa mën naa nekk ngir loolu la yàlla def ngir boo demee ci wasiya boo xam ni Seydina yiw liggéeyam bari na sunu boroom nga see wax yonante yi ne leen waaw bi seen bu seen mission jeexee man yàlla ma defaat leen aw xeet delloowaat leen ndax di ngeen gëm du wala déet ñu ne ah kay danañu ko gëm mu ne seede naa ko ànd ak yéen ñu seede ka ñu daxooroon ci boo déggee li baax naa suqa kàddun sàbbaane ñëpp naan mar waa ngi rey ñi gantu ngir ki loolu moo taxoon moom lay way sëy naa limaamu nag ci yoon wu jëkk wi ba nga xamee ni weddi nañu dañu ne yàlla samihna wa raayna fa arjihna inaa mooxinoona danoo trompé déggoon nañu woote ba gis nañu waaye delloonu rek dinañu gëmaat loolu ci wuti bu jëkk ba loolu xewoon sunu borom ne ah su ma leen dellootee adduna da ngeen gamaat ñu ne waaw mu ne kon day danaa leen musal azaba naa doona asabil akbar danaa leen mbugal mbugal gu ndaw mooy mbugal ak bàmmeel mu des nag gu àllaaxira gu bis penc ma ñu ne ko samih naa wa raay naaw farijax naa innaa mooxi noona déggoon nanu woote ba gisoon nanu waaja waaye rek dañoo réeroon kon delloo na nu gëm sunu borom andi tuufaan far adduna dekkalaat roo yi yónni waat yonante ba muy limaamul mahdi ngir tuufaan ci ginnaaw nooyin la ndax ñoo ko waxoon yàlla andi tuufaan far adduna dekkalaat roo yi yónni waat mahdi limaamul mahdi que ñoo ko noonu delloon farjix naa naa moo ko noonu soo delloo doon nu gëm mu defaat lii ñu ne teg bàyyi laay woote ñu ne teg bàyyi laay ci waxin wolof waaw yéen jàngkat yi la la daa feer ci ñu ne ko mooy ku layoo ñu yey ko ba noppi mu ñaan d'appel war a layoowaat mu ne waaw bu layoo waatee bu ñu kayee ni ñu koy def ñu ne ko dañ koy tëj duubal peen mu ne kon kat da ngeen na ñaanoon da peen yéen jamono maa ngi seet ko seet ko seet ko seet ko da kat yéena noon farjaxanaa te loon sonu dellu de inaa moo xi noon danañu gëm de ma far àdduna andiwaat den yónneewaat ngeen di waxati kon nag duubal peen lañ leen war a tëj quand même bàyyi laay def sulha mooy maslaa rek waaye nag xaymatu tatawuri moom ngeen di wax évolution ak développement ci diine la fekk baax ci diine la fekk baax moom la arab di wax xiimatu tattawuri kooku ci diine la fekk baax ndax lu mën a am ci jamono jii nu ne ba muy yéem nit ñi ci lu mu doon amoon na ci jamono yu jëkk ya loola bu dee ci wàllu commerce ah ci wàllu communication wala wàllu transport ñi fi eh, buur yi fi ne li ñuy ñaw ñëw ak vingtième vingtième siècle xaw ma ngeen koy wax li ci xam-xam yi bari bari bari kenn waxu ci mosu cee wax xam picc te Souleymane wax naa picc kenn mosu cee wax xam xorondom te Souleymane wax naa xorondom yaa ayyuha naas ulim naa mantiqa tey wax naag picc yi wax ak xorom xorom te lii xam-xam yi bari bari benn borom xam-xam mënu ci ne picc mi kaay loo wax ba am picc mu sob ñu di wax mu si njuburu mu nga yéeg ci genn genn garab bu gudd waaye nag di wax lu neex mu nga naam muhammadu xayrul anbiyaai wal mursalin moom moom la moom lay def nii rek ndeysaan di di yëngal gen ba naam muhammadu xayrul anbiyaai wal mursalin suleymaan aksi ndeke benn xele benn xele bu mel ni benn waay bu mel ni jibigéey mu nga <laughs> moom ca fajar la ñëw ca taatu garab gis picc mi rek daal wut ak ak ak ak ak ak mbëpp ak mbëpp def mbëpp gi ci taatu garab gi rek picc mi di ko xool Suleymaan ñëw xool picc mi xool mbëpp gi ne picc mi naawal wàccal garab gi mu ne ko duma fi jóg mu ne ko jóg fi demal mu ne ko duma fi jóg di way rek naa Muhammadu xayrul anbiyaai wal mursalin Muhammadu xayrul anbiyaai wal mursalin mu ne ko jógal fii mu ne ko duma fi jóg xanaa xale bi gis naa ko ci suba la fi ñëwoon ci suba la fi ñëwoon suleymaan wax wax wax wax ji bi ngay tëre suleymaan daal di continuer dem tourné wu ñu ko fekk picc mi wàcc ba xale bi di ko nuus yeew suleymaan ak si ba tiim kan téew fasam picc picc mi est ce que téewoon na ko te mu bañ picc mi ne ko konoot xool ko Suleymaan ne ko waaw luy lii luy lii mu ne ko dogalab yàlla jiitu na gis ngir bi may wàcc ba dugg ci mbëpp gi yëguma ko Suleymaan ne waa ji may ma picc mi mu ne ko mayewul mu ne ko jaay ma ko mu ne ko jaayul góor gi la demal bàyyi ma ak picc mi léeg-léeg picc mi ne ci ci parce xam na ne xale bi ci ren di nga naa ci ci Souleymane ne neegu la dem téye fas rek ma picc mi de mu ne ko jaayul may ma ko saraxuma ko mu ne saraxawul mayewul jaay bay ma yow xanaa du yonante la yonante du tooñ demal sa yoon loolu bàyyi laay boo déggee mu ne bàyyi laay misaal na leen ay leer say leer asoor ngay la ala life, my life. yonentam yàlla bay lay nga naa yaay baat na laay leen seen buur jaamu leen seen buur na bilaay karim ngay laa jékki-jékki yàlla gumbaloo ko ko jàppoon dog buum nga yeewoon picc ba naaw yonte Suleymaan nag ñaan na sunu borom picc mii yoneen bu fu ñëw naka naka naka naka dëkkoo bu ko bu na dëkk ak ku dëkkoo fu ko saxir ween la ñëw na siyaar daan na ziyaar na nga naaw la ñëw na ziyaar anda gaaya ñëw di ziyaar loolu doy na kul ziyaar an salil kiraamate ci jiroo lay ku la way am garam fa jàngate loolu doy na kul ziyaar an salil kiraamate ci jiroo lay ku la way am garam fa jàngate sëy naa isaa wutoon ndaayu picc ci kër gi ñu di ko rootal picc yi ci kër gi sëy naa ma njoon doon ko def ku fi ne sama nag di foo fa def ndaayu picc yi ngir seen picc moom ndax ñanaaw lañu ñëw. la ñëw na si yar. ndax nga naaw da ñëw na ziyaar ànd ak gaay ñëw di ziyaar eh, loolu doy na kul ziyaar an sawil kiraamate si diroo laay ku la way am ngaram fa jannate loolu doy na kul ziyaar an sawil kiraamate si diroo laay ku la way am ngaram fa jannate pour bëgg na nga teel a yow moom Mouhamadou Sakhir mu noppi tamit feeñul ca bàyyi laay cig tag feeñul ci isaa cig tag mu nga ñëw ca mën la mën a ndax mu ne mu feeñ na ca moom mu gisaade feeñ na ca moom mu gisaade feeñ na ca moom boo xamoon la nekk ca moom kon nga dootu baati ca moom moo way ak ngaram fa jàmmete kon nga ñëw tubaati ca moom moo di sooli naayete loo walaay ku la way ak ngaram fa jàmmete suñ dëj boobu pour bañ nga bañ a tardé mu ne gaañu yeewu leen bañ a juum Seydi Roowu ñëw na ba way seeti na rakam. gaañu yeewu leen bañ a juum. waaw kay gaañu yeewu leen bañ a juum. Seydi Roowu ñëw na ba dee. seeti leen rakam jamu am. bañ a jom ba tuuba dee. Seydi Roowu laay ku la way. am garam fa jaan na dee. seeti leen.